moomeelu askan bi la léegi dafa mel ni service public buñ ko laalee rek daanaka laal nañ askan bi yépp di ñaawlu lool li nga xam ne moom la ñuy def nga xam ne c'est la violation de la liberté de la presse kooku liberté fondamentale la kenn amul droit di ko laal <coughs> surtout niñ koy laalee de façon arbitraire ñépp xam nañ ne Walfadjri li muy def di ko wax di ko wone c'est sur la base du professionnalisme journaliste bu xarañ fii jaar nga wal fajri wal fajri université la loolu la Sidi Lamine daan wax donc université wal fajri bi dañ ko war a respecter respecter ni ñuy liggéeyee respecter li nga xam ne mooy opinion yi nga xam ne moom lañ fay exprimer donc di leen jox suma soutien le plus total et di wax ministre bi na delloo lii nga xam ni mooy droit wu Walfadjri dans les meilleurs délais loolu daal la ñuy xaan xaar ci moom di leen nuyu di leen sent te di euh, di leen apporter tout le soutien bi nga xam ni moom laa leen di jox jërëjëf. jërëjëf Alioune Tine nekk fondateur Africa Jom Center nekk militant des droits de l'homme Mame Biram <coughs> alors day. waaw xam nga démb maa ngi ne démb euh, li président Macky Sall wax euh, daanaka dañoo yëgal ne abrogé na démocratie Sénégal maanaam euh, texte yeeg luwaay bi ci jiitu di constitution dafa gas suul ko donc ku def loolu bàyyeetoo leneen bàyyeetoo leneen te souvent à chaque fois que ñu dal ci askan wi jàppal na dal nañu par ricochet ci Walfadjri parce que ñun dañoo jagleel suñu bopp Walfadjri euh, bu ñuy xewee nag euh, nekkul suñuy bopp la ñuy tal ak fu ñuy xëy liggéeyu suba li ñuy gën a tal mooy ak li ñuy gën a wax mooy sénégalais kan moo leen di informer suba juste et vrai muy wone li ñuy doon wax sànq Walfadjri xëy na. ñun ñoo fi nekk nekk responsable yi mais moomuñu ko askan wi moo ko moom parce que askan wi mooy bëgg information boo xoolee yeneen ñeenti télé yu mag yi fii nekk Sénégal ñenn ñi ay reportage ñenn ñi ay musique donc li xew Sénégal Walfadjri moo koy wone donc ñun bu ñu décidé ne dañuy ànd ak askan wi euh, le président Macky jël loo xamante ni def na ko ñu jàpp ne dafa foqati dooleeg askan wi donc bu boobaa bu liy xewee du ñu bett. Euh, man ñun li ñuy wane nii journaliste bu ne bu ne doo ko wane bi boo nga dem xotti ci sa diplôme de journalisme. sa carte waaw wala sa carte de presse nga delloowaat ko. Ah, ah, voilà xam nga amatoo amatoo sens su nekk journaliste. quand xam nga bu ñu demee ba euh, ay wax rek. di leen di déranger parce que yaakaaruma ne image yi mooy poser problème. sànq maa ngi ne la jusqu'à présent reportage yu Gaza yi ñii dañ koy wone Gaza ay xale ñoo fay dee. ay jigéen ay mag. Sénégal gi yaakaaruma ne tollu nañ. un cinquième fi nga xamante ni foofu la Gaza te pourtant image yooyu nit ñi ñu ngi koy wone donc loolu pour man c'est un prétexte te xam nga euh, Sidi Lamine Niass da doon wax ne Walfadjri normalement pouvoir bi moo ci war a gën a am intérêt muy dox parce que képp koo xamante ni am na lu lu ko métti lu muy def mooy day wut fu mu ko waxee te de la que moom wax na loolu ko métti mën nañu njortu ne dootul wàcc ci télé bi mu doon ko méngale ak cin loo xamante ne day bax ñu tëj ko mu ne bu yàggee day tëbal kubéer gi mhm. loolu nag mooy xew nii bu nekkee ne nit ñi mer nañu te amuñu fenn fu ñu ko mën a exprimer lan mooy des mooy mbedd mi te ñu ngi wone boobu ba léegi ay taal-taal man jàpp ma ne le professeur da Ndiaye soo ko gisee léegi ak yéreem yu weex yi nga xam ne kii ñëwul ci mbedd mi pour manif pour pour taal pour xeex pour taal pour xeex donc nit ñi bu ñu ñëwee pour manifester loo xamante ni constitution moo leen ko permettre ñu ne leen doo leen ci dal il faut sa tam ce que yu mel nii di am ay débordement di am mais nit ñi suñu sañoon te loolu ci loolu lañ leen di woo mooy ñu exercer seen droit de manifester boo xamante nii mooy génn wax ne ñun d'accorduñu ci li xew mais loolu c'est très différent génn taal fii génn bloqué fii génn manifester wax ne lii ngi xew nii neexuñu te loolu yaakaar naa ne bu nekkee ne pouvoir bi ak li ci des ci pouvoir bi pare nañu véritablement pour jox askan wi lu tuuti liñ leen deseel ci gëdd yaakaar naa war nañu mën a accepter quand même dóor yi ñu leen dóor ñu may leen ñu jooy ko waaw dóor nit ba pare ne ko doo ko fi jooyee moom amul fenn c'est ça mm-hmm. Mm-hmm. Georges n'est-ce pas waaw loolu la loolu la doon wax rek dama la ne est-ce que Euh, c'est le discours wala lu ñuy plateau yi spécial bu ñu organisé moo leen métti wala image yi bu fekkee ne euh, lu ñuy wax moo leen métti